ñoo xam nga xam nga mënoon ngay euh, tàggatoo Fatima. nga jiite ab gox. Mm. pendant douze ans di tàggatoo. ay la yewen dafa waroon doon moment bu détendu mm. ña nga doon jiite triste. ndax wax dëgg yàlla ku ñu dimbale bu ngi dem ku ñu jàppale woon mi ngi dem mais loolu amul. maanaam euh, yi yi ci mujj nii sax moom Sénégal yi dañ ko yitteelul woon sax parce que moment boobu mm. dafa fekk ne Cour suprême mi ngi doon waaj a àtte mbirum Sonko ñëpp ci loolu lañ mm. nekkoon maanaam Ousmane euh, le sort de Ousmane moo gënoon ñor euh, moo leen gënoon ñor loolu yëpp moo gënoon ñor askan wi mm-hmm. yenn yi yenn saay ngay dem ñu lay sonkoriser mm-hmm. amul kenn ku maanaam triste ci sa départ léegi nga toog waral maire bi léegi xoolal ma maire bi rek ay ñoñam mm-hmm. la njëkk ne boo leen amoon fulla yéen kon ñoom amuñu fulla Ah, nga gis il n'a qu'à assumer man je me dis que il n'a qu'à assumer parce que moom moo nekk le chef de l'état waaw boo demee ba ñi la jiite maanaam la nga doon sant defuñ leen ko nga toog di ko wax ci kanamu ñi ñi loolu ñun dénkuñu ministre de l'éducation ñun suñu éducation yow leen ko dénk mhm. ñooñu ñooñu dañuy exécuter dans le cadre euh, euh, global bi ngay définir mhm. waaye léegi yow boo demee ba sa ministre déggalu la ministre yu dëgër bopp ñoom tamit crise d'autorité mu ngi noonu mhm. waaye léegi looy xasee waaw xolam moom fi léegi léegi léegi xas ñoom àndal. Mm-hmm. kon moom d'accordul ci euh, ñooñu nuñ doxalee xas opposition. Mm-hmm. société civile ku ci nekk nga yàq ko lu mel ni xeme loolu ça veut dire que lui il est seul. maanaam moom il est seul. àndul ak kenn opposition àndul ak moom euh, ñam waa bennoo ànduñ ak moom kenn euh, dimbalewu ko. kenn mm-hmm. liggéeyal ko donc finalement il est seul. ak ak pression. je me dis que pression lu ko war lu ko fi war lu ko fi jar lu ko fi jar téye woon benn nit rek mhm. singili ko bu doon adversité politique sax garaawul mais inimitié dëgg dugg ngay gis sa ay ñooñ suba ba jant soo ñu koy saaga ak recrutement saagakat yu bees yi waa léegi taxaw taxaw euh, léegi ñi mu doon xas ñoom la bu dee discours bu violent ay waa këram ñoo ko fi dàq bu dee saaga Ousmane ko waa këram euh, dafa mel ni ñoom dañoo foogoon ne. Mhm. loolu moom moo leen di may ay poste am peut-être am na sax am na ñu bëri saagakat yu bari après dañ leen nommé. ko remarqué. waaw léegi kon kay ñi nga xamante ne di wax te xamuñ dara ci li ñuy wax ñooñu la. Mhm. tey jii Mamadou Lamine Diallo tekki bu taxaw assemblée di wax moom ku remarqué war koo tontu. xoola écart boobu noonu ci euh, xam-xam borom xam-xam bii nii ak euh, saagakat bee. xeebel moo moo am ci mujjantelu li li jot a xeeb yëpp li ko li ko li ko waral li ko waral du lenn lu dul bëggoon a faagaagal benn adversaire politique ba polluer espace politique bi ba dugal ci ay xeetu wax yu ñàkk fayda lool waay donc kon moom bu doon euh, am na lu ko metti loolu la war a doon. des gens qui se réclament de son parti chaque jour nga gis leen ci plateau yi defuñ débat d'idées mm-hmm. di saagawaate suba ngoon guddee bëccëg attaque de personne salafiste nga lu si sooyoon bu nekkee salafiste franchement yow nit ki ne la kaa ñu jéem xool nu ñuy doxalee suñu réew andi un projet pour sa réew yow lijjanti woo projet bi de amoo pour sañ-sañu attaquer euh, projet bi mm-hmm. amoo xam-xamu attaquer idéem lan ngay topp di attaquer nit ki sa jabar sa doom sa papa sa yaay ainsi de suite cest à ay waxu daanu ci sareet moom bu amoon lu ko metti ak lu mu xuloo na xuloog ñooñu Fatima am na foo xamante ne boo fa tollee ay échec di enchaîné wu boo amee koy mere mereel sa bopp mais même ci échec yi sax man fi ma gis ni ñoom fa la ñu njëkk mooy euh, gis nañu ndaw ñu bari di jaar ci gaal gi loolu di dem loolu xam nga di weesuwul loolu lajj weesuwul plus de cent et quelques euh, yu góor ak ay jigéen ak ay mineur dee ci ndox bi euh, gisuñu fi deuil national gisuñu nga rendre hommage kenn sa soi-disant ministre am laa wax parce que ñu du suñu ministre ñu jeunes yi euh, moom gisuñu mu taxawaay am taxawaay boo xam ne jot na ko amal di euh, Pape Malick Ndour fi li leen ñor fi mu ne nii mooy toog ci dëkk bi di wëndëg wëndëg gi mel ni wërum ay parrainage. waaw xam nga parce que nit foog nga def résultat. ñu door la fal man personnellement c'est ça que je me dis amuñu ministre de la jeunesse ndax li jot a après nga toog di di xoole wala di nar a indi yeneen teg leneen affaire ne diw moo def lii wala loolu mu nekk. mais c'est-à-dire da nga def sa devoir. ministre bi sax lan la mën a def bu dee patron ci boppam. Mm. amul pexe ci euh, amul solution. Mm-hmm. parce que yow tey jii nii euh, moom nee na nee na li mu meree gaay mi boo leen amoon ful la euh, duñ bëgg a wax ba wër leen parce que am ngeen résultat mais amoo leen résultat. amoo boo amoon résultat ñoom ci résultat yooyu la ñuy sukkandiku pour wax. Mm-hmm. bu doon euh, gagné la débat euh, benn ñooñam daf ko bind. Euh, muy Abdou Aziz Diop. gagné la débat ma ne ko mais grand nooy gagné le débat sans pour autant avoir d' argument. argument quoi parce que li nga fi def ci ay route autoroute piste rurale ainsi de suite mais loolu ñun suñu budget suñu potentialité dafa ëpp loolu. Fatima ma jox la cent milliards nga tabaxal ma këru deux chambres salon. ba pare naan ma am nga chambre am nga toilette am nga nangam mais dëgg la am naa ko. mais li ma la jox ay la yéwén ëpp na loolu. boobu ba mu fi nekkee ba léegi. ñaata milliards. près de quarante milliards de budget am na fi. Mhm. nga am une jeunesse valide. Mhm. am des ressources naturelles. am am am am am am ay xale yu am jom nag bëgg liggéey bëgg tekki bëgg a teral seen i wayjur. waaw léegi loolu yëpp nga am ko ci potentialité mais teewul bi. Euh, Euh, nga bëggee assurer sa indépendance euh, sa souveraineté alimentaire da nga dem ci dëkk bu nekk en guerre Russie pour négocier foofu noonu sa souveraineté alimentaire loolu te loolu moo Ukraine la dem pour négocier souveraineté alimentaire loolu du échec. Poutine de caaxaanu. ah loolu c'est-à-dire oh. échec bi rek foofu la tàmbalee waxatuma la ak nag jeunesse boo xamante ne ay la yéwén seen bakkan pour tekki seen bakkan la ñuy teg ci gaal gi mais parce que ñi yore gaal yooyu noonu. Mm. ay nappkat lan. Mm-hmm. jël ay licence de pêche. jox ko ñeneen. Euh, ñoom maanaam amatuñu sax accès ci jën yi nga xamante ne moom lañ doon kii ñooñu duñ jël seen gaal yi jéem ut pexe. yëpp ci nit. pexe lu ut pexe la pexe bu désespéré nag voilà pexe bu désespéré pexe boo xamante ne échec bi c'est cuisant léegi nag am na moment boo xamante ne. Mhm. am nañ yaakaar mais du ci yow lañ am yaakaar de ci beneen euh, acteur politique lañ am yaakaar muy Ousmane Sonko ñoom ñu fexe avec une manipulation de masse. utiliser euh, ay ay ay ay mécanisme ak ay superfuge pour ne éliminer nañ waa ji am na ci ñu bëri ñoo xamante ne foofu la seen yaakaar gën a jeex. ñu ne nag comme que. Mhm. kii waroon ñoo sauver ba li ñëpp bokk ñëpp mën cee jot. Mhm. kooku faagaagal nañ ko ñun ñu ngi dem suñu yoon. donte faagaagaloo guñ ko nag moo tax am na ci kenn mu mooy mu ne mooy euh, bi mu gisee 111 bi. Mhm. waaw mu ne ma saay mën na laay def ba pare ne ma ne ko mënoo pare ne. ci ñi dem. waaw mais Pa loolu. ma ne ko mënoo parrainer parce mhm. que yow fii nga waroon a parrainer bàyyi nga ko fi dem. mu ne noo xam woon ne pexe am na ma ne ko dama waroon wóolu Sonko. mais loolu nag euh, du dara ci ci élection yi ñu jëm nag ñi dem nii. Mhm. wàññiwul dara. non non non non non parce que nag euh, de participation. non non non non non non defal nank <laughs> loolu amul benn impact. ci fichier bi mm. maanaam Ousmane Sonko moom euh, duma yim nar a duma gars yi moom bisu cinq février bi nga koy xam maanaam du am layam layami victoire bu dul am layam layami lay doon. maanaam da ngay toog ci bureau de vote dégg Bassirou Diomaye Faye 1500 Amadou Ba 1 loo ci mën loolu. Amadou Ba dama ko yërëm nag. <laughs> Amadou Ba mu ci mi ci problème donc donc donc kon euh, ñi nga xamante ne dañoo daw pour désespoir. Mm-hmm. parce que seen espoir mu ngi nekkoon ci Ousmane Sonko. Mm-hmm. ñooñu euh, dama jàpp ne euh, espoir bi d'accord dëgg la mais kóolute bi moo desoon. am Ousmane ko boo ànd ak moom da nga ciy boole wóolu. mais Pa Moussa xam nga mën nga wóolu nit. Eh, xale yu góor yu ci bëri yow ump la ump ma ñoom ñëpp ci kaso bi boo fa demee jeudi wala nga dem mardi rëbës waaw am na ñoo xamante ne seen dem ba pare mënoo boole la prison waaw dafa metti c'est c'est dafa am ñu daw pour outil euh, lu ñu dundee mhm. am ñoo ne dañoo daw parce que amatuñ espoir am na ñoo xamante ne danoo daw parce que xam na ne buñ taxawee ñu tëj leen te bu boobaa dootuñ mënati seen mën a seen combat. Mhm. donc kon daw yi c'est multiforme léegi ñi nga xamante ne nag ñoom danoo jàppoon ci Ousmane Sonko. Mhm. ba dem ba ci biir gis ne Ousmane Sonko mii faagaagal nañ leen ko ñu daw ma ne ñooñu dañoo des a ku wóolu Ousmane Sonko parce que ko dina xam ni Ousmane Sonko il n'abdique pas ci combat mhm. du dellu ginnaaw du daw d'autant plus que combat bi gagné nga ko ba pare. cest à li nga war a li ñu waroon a xam mooy ne Ousmane ba mu gagné combat bi dafa yàgg le 25 février 2024. ci la ñuy xam l'étendue du travail abattu par Ousmane Sonko et Pastef. ba léegi nii nii nii gars yi mënaguñu xam ampleur bi. donte nag am na lu ci parrainage yu Diomaye bi euh, firndeel. 111 mhm. bi. am na li mu firndeel ci ndekete Ousmane Sonko li mu liggéey ci réew mi bëri na torop mais le 25 février lay gën a leeraat mhm. donc kon ñoom balaa ñoo dugg ci euh, Diomaye di leen duma mhm. parce que Diomaye ay dumawam day gën a metti ci ñoom parce que Diomaye dalay duma waale ba duma la sa biir fief. waa kay biir séeréer de waa Fatick. dalay duma ba duma la sa biir fief loolu baa euh, day gën a metti. Mm-hmm. Diomaye teg ci koo xamante ne la. Euh, gañewul commune am gañewul bureau de vote am peut-être nekk koo xamante ne euh, moom si boppam sàkkuwul jiite Sénégalais Diomaye son candidat c'est Ousmane Sonko. Mm-hmm. donc Diomaye bu leen duma. c'est plus humiliant nañ génne Ousmane Sonko donc Ousmane Sonko moo la gagné moom du gàcce. wax dëgg yàlla. kan mooy roi des arènes xam nga ñëw ne roi des arènes moo la daan du du gàcce de Ousmane Sonko ku mu daan du gàcce. Euh, kan la doon euh, jafalanteel euh, ci mairie Ziguinchor Benoît Sambou Benoît Sambou lañu ñu investiroon ci local yi ñoom. Mm-hmm, mm-hmm. mais xam nga du gàcce ci Benoît Sonko moo la gagné. Victorine Ndeye la Euh, investiroon. Mhm. Victorine biñ ko gagné. Euh, foog naa waaw dafa def dafa def poste. Mm. félicité leen kooku euh, esprit sportif la yore. parce que Ousmane Sonko moo la gagné du gàcce. waaw léegi comme que Ousmane Sonko moo la gagné du mhm. ñoom nañ ànd Ousmane Sonko mu gagné leen. mi ngoog soxna si la mi ngi laajte mais Diomaye la gagné moom gàcce la moom. Eh, soxna si la nee na ba xam sàcc élection am na ci réew mi fii loolu amul. non man gëmuma ko. c'est-à-dire élection pour man. Mhm. bu ñu ko mënoon a sàcc. un du ñu faagaagal Ousmane Sonko